yi gërëm leen sant leen rafetlu bég rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bii di suñu média ñu amaan mbégte ak kontaante di leen dégtal seen chronique comme niñ koy defee alarba bu ne tey nag seen chronique dañ koy daal di waxtaanee ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum ubbite école bi maanaam éducation jàngale jàng ak jàngale ñi fas yéene see waxtaanee ay ponk yu bëri lu ci njëkk rek mooy tey suñu réew mi ñu toll éducation dafa nekk loo xamante ni dafay am njëriñ parce que cause yu mu ñu bari gis nañ ko ndaxte tey boo demee ba gis lii di étudiant ñetti étudiant faatu ci li nga xamante ni moom mooy wàllum émigré clandestin yi ñii di dugg ci gaal yi di dem Espagne te lu ñu gis rek lañ jot a wax ndaxte nag bu fekkente ne ni tey jii nii nit ñaa ngi dem bay jël mbëkk mi ñu dem ba nemmeeku ne am na ay étudiants yu ci dugg kon ñàkkul am na ay élèves yoo xamante ni dañoo war a nekk ci seeni examen dal di ko bàyyi dem dugg ci mbëkk mi du ci ñàkk kon nag quand on parle de l'éducation je pense bien que ne éducation bu am suivi la ñu bëgg ci Sénégal c'est-à-dire éducation boo xamante ni boo ci paree rek di nga am formation boo xamante ne métier lañ lay jàngal donc loolu defe naa ne président Macky Sall moo ngi ciy xaw a béy waaram parce que nag bu ñu demee nag tey ba tijji ay université yu bëree bëree bari fii Sénégal lu mel ne université Sine Saalum bokk ak kafrin ak Diourbel ñi nekk ci di jàngale li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu mbay kon day jot ak tamit day laaj. ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ci bile mbir rassurer xale yi après seen étude lan lañ war a mën a dooni ëllëg mais malheureusement ce n'est pas le cas fii da ngay gis nit ki di jàng di jàng di jàng am na fu muy toll bu amul moyen du mën a demati waaw lu waral loolu parce que nit ki day commencer primaire def fa six ans dem CM def fa quatre ans dem lycée def fa trois ans après lycée xalaatul fenn fu dul université te pourtant war nañ mun a tijjee école de formation yoo xamante ni après bac tak da nga war a commencer jàng métier léegi ngay dem université dem université c'est super c'est bien parce que nag soo fa demee yokk sa xam-xam lu ko gën a neex amul wante tey jii nii demal ci monde yu demal demal ci dëkk yu baree bari fii ci monde bi lu mel ni nga dem Japon après les études te cycle primaire ba secondaire boo fa paree ñu ci ëpp c'est pas c'est tout le monde mais ñu ci ëpp la majeure partie muy Japon di Chine di Inde soo fa génnee takk ñu ci ëpp lu ñuy njëkk a jàng ji mooy métier mais tey tey jii nii. soo jëlee sa doom jàngal ko ba mu jàng ba pare moom lu muy njëkk a xalaat mooy liggéey dugg toog ci bureau c'est bien beau parce que nag nit ki même bu fekkente ne da nga am ay tool aménager sa benn bureau di fa toog j'espère bien que ne loolu déjà bureau la bureau ce n'est pas quelque chose boo xamante ne dañ ko climer am chaise euh, roulante et genre donc no non non non loolu du bureau bureau la gaa mais am na loo xamante ne nii aussi xale yi war nañ leen see tàggat yar leen ci xamal leen ne après seen étude war ngeen mën a def lii forcément léegi nag ñoo ngi jëm ci ubbiti école yi ku ne xam ne ni suba la école yi di tijji am nañ ministre de l'éducation boo xamante ne ni xam-xamam màcc na lu jëm ci wàllum éducation kon nag moom day jar mu daal di càmbar gëstuwaat même bu fekkee mënul def école yëpp mu dugg xool yan école yoo xamante ne nii tey jii nii xale yi ñoo ngi fa nekk dans de très bonnes conditions ñu nekkul ci très bonnes conditions maanaam ñi nga xamante ne ñoo ngi leen di defal des abris provisoires depuis des années et des années nañ ko dindi teg xale yi ci conditions yu baax ñi daal di jàng loolu c'est très important nga jël exemple ku mel ni maire yëmbal Baara Gueye keroog gis nañ ko mu ini mu inauguré benn lycée ca yëmbal yëmbal musul am lycée ba doon na yëmbal ba léegi c'est la première fois ñu am lycée ci fond ñu fas yéene leen def li nga xamante ne nii moom moo di actualité de la semaine lañ ko defaree ñu leen koy amal léegi nag dëkk bu nekk su waxtu bi jotee maire bu nekk bu defoon loolu ngeen defee ne Sénégal du avancé nii moom moo di ñu bañ a jël lépp rek di ko xaar ci ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew actualité de la semaine te dañ koy daal di tàmbalee fi nga xamante ne nii moom mooy di Tiwaawoon ordre yi ci moom lay jógee c'est vrai bi di dëkk Maam Mor mais xalaat yi ñun ñëpp a ko war a bokk nga xamante ne nii moom moo di xalifa général des Tidianes ne ko am nañ xalaat bi ne ren fekk si la si nga def ko. guddi gi nga xamante loolu ku ko def mooy guddi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci diir bu gàtt. bi daal di avancé mais dama ruwaan ko def ku am xalaat bu rafet ko def mooy dafa ci li nga xamante ne nii. pencoo ko ki nga xamante ne moom mooy njiitu loon askanu Sénégal pour xeex waxtu bii di coronavirus. éducation nag tax na ci loolu la sukkandiku ba jox ki nga xamante ne nii. képp koo xamante ni euh, da ngaa bëgg sa réew si Abdou Aziz. avancé daal di def benn déclaration déclaration bu gàtt. jàkkaarloog presse bi daal di leen xamal ne donc éducation mooy base boo xamante ne nii day defal nit ki gàmmu gi déontologie déontologiquement defal nit ki defal xelam daal di continuer actualité yee nit ki le président de la république Macky Sall nag boo ne ci éducation moo di suñu njiital réew daal dina amal tukki nemmeeku ak fële ci Nigéria képp kuñ la mënta mais tey jii nii Mouhamadou Buhari nekk njiital réew Nigéria professeurs yi daal dina waxtaan ak moom ñoo ngi jàngale ñu bokk mais jàngale wu nag xel bu dal lu tax na rek parce que ñu ngi xalaat ne war bu dee ponk yu bëri Afrique suñu salaire xaw daal dinañu gis ki nga xamante ne tamit daal dinañoo fekkee ndaje bi logement yi ñu waxoon di suñu président Guinée Bissau bi di Umaro Sissoco yóbbu réew kanam nit ki da ngay jàngale luñ fa doon waxtaanee xam na mooy wàllum coopération bilatérale bi nga xamante ne ñett dëkk yi bëgg nañ barab boobu ngay jàngale euh, sekk daal di ko doxal ci question beaucoup de professeurs yu lu ñuy dem ci euh, privé di xarmat moo ëpp ki nga xamante ne nii moom moo yor kàddu dama dégg ci benn parti bii di Pastef maître Abdoulaye Tall école privée nee na moo ngi rëccu doomu baadoo lay ñoo woon maanaam li nga xamante école publique lañ jàngee ba toll ñu toll suñoo jaar noonu la présenté woon Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne nii la euh, mooy maître Issa du ñi nga xamante ñoom ñoo doon jàngale njëkk ba ko ci maître daal di leen présenté ñoo gën a wante nee na bis am formation que ñuy jàngale tey c'est ça Ousmane Sonko daal dina weddi ñi nga xamante ne nii moom moo di tuuma yu Mansour Faye daal di jël teg ko ci ndoddam nee na lenn amu ci salaire bi après bu ñu neexee sax mu daal di génn audio yi parce que ay audio 30 minutes 30 secondes moom nee na loolu moom du. ak loolu leen di waxal ñoom professeur aussi yi aussi euh, tuuma am na loo xamante ni am na daal des ci actualité bi ba léegi bi nga ne nii moom moo di président ñoom lañ njëkk a jël Emmanuel Macron daal na jël li nga xamante ne nii moom moo di dogal àllarba bii ñu génn ne samedi bii ñu moins de vingt quatre heures day di defaat li nga xamante ne nii moom moo di couvre feu fomm nañ à partir de vingt une heures kenn bu France ñi dellu si waat si suñu réew ki nga xamante ne nii moom moo di Abdoul Mbaye ñi leen fal nañ ko vice premier vice président assemblée nationale ni ki euh, démb ki nga xamante ne nii moom moo di Abdoul Mbaye ginnaaw ba ñu yeesalaat li nga xamante ne mooy bureau assemblée nationale bi moom la ñu daal fal pour mu nekk première kon da koy kon ñi président assemblée euh, nationale ñi daal di des ci xibaar yi ba léegi lan mooy éducation dañuy ci ci wàllum sport li nga xamante ne solo bu mu am moom mooy sport bi waroon a dox solo bu éducation am ci réew football bi waroon a dox ci diggante Sénégal boo jëloon cent pour cent di ko diviser Mauritanie solo bu nekk ki nga xamante ne ni moom mooy éducation lu métti métti métti ki nga xamante ne nii moom mooy Abdoulaye Diaw parce que sans l'éducation rien ne marche tey jii nii nee na Mauritanie covid bi taxawee xamul ñi nga xamante ne ñoo nekk ci hôpitaux yi di faj. loolu moo ko njëkk a jaaxal parce que bu fekkente ne ñi nga xamante ne aussi ñoom ñooy xale yi dëkk boobu noonu covid bi dina feeñ seen dëkk jël wante nag fu ñu mënti jëlee avion rek man dama yegg première nee na loolu mooy débat bi bu fekkente ne nii vérifié woon pendant quinze jours loolu war a jàngal avant ñoo départ lii yëpp du ci am donc li nga xamante ne lii loolu moo tax xale yi annulé match bi sensibiliser leen woon xale yi tamit nan la ñuy sensibiliser seen morom dañ ko waroon annulé Covid bi ñoo yegg si fii ci réew mi ci Sénégal ñi daal di wéyal suñuy xibaar ba léegi ki nga xamante ne nii amaat ci réew mi gis nañ instant bi moom moo ni dix mille problèmes yëf yi dafa ñëwaat comme deuxième vague mbokk yi daal leen jàmm ci ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bii di suñu média suñu réew ñaanu ñu yàlla ñu fas yéene leen dégtal li nga xamante ne nii moom moo di actualité de la semaine mu amaat ñu leen koy amal samedi bu ne su waxtu bi jotee ci fas yéene leen a jox bu ñu delloo suba ci école de la semaine ni raxas seeni loxo bu ñu ñëwaatee de la semaine te dañ koy daal di tàmbalee fi nga xamante ne moom moo di euh, Tivaouane dans les écoles am na ay gardien sell bi di dëkk Maam Maodo Malick bu jël ndogal thermoflash ñuy xool xale yi guddi gi nga xamante nii moom mooy guddi yenente bi sallallahu alayhi wa di gàmm dajaloo baa ngi am xale yi dañuy nammante seen biir duñ ko def te bu ñu gisante suba dinañ xamalante dinañ tooñante dinañ joxante ay loxo dinañ digaloon askanu Sénégal di waxtaan pour xeex wopp bii di coronavirus moom nag ba tax na ci loolu la sukkandiku ba jox ki nga xamante ne leneen ak leneen di amaat ci réew mi li fi euh, amoon weer yële passé ñaari ñu yàlla mu ñëwaat kon seen normal daal di def benn déclaration bu gàtt jàkkaarloog presse bi. nan la ñuy jéem a tàggatee xale yi Tiwaawoon moom ren du amal li nga xamante ne nii moom moo di gàmmu gi fii ci Tiwaawoon moo ngi fi damagul. ñu daal di continuer actualité bi le président de la république Macky Sall ki nga xamante ne nii moom moo. loo xamante ni mooy ci yeneen réew yi daal dina amal ci yeneen réew la jógee ñëw fi fële ci Nigéria. ñun fii xëy xëy rek am ko de dafa am ñu ko fi indi. Buhari nekk njiitalu réew bu Nigéria. moo tax nag kenn mënu see mucc am na dëkk yu bëri ñoo ngi delluwaat ci confinement lu ci mel ni Portugal Espagne ba ca euh, France ñëpp a ngi delluwaat ci confinement ñun gis ñaan yàlla ñu waat ci confinement kon nag ngala buñ ne école yi na président Guinée Bissau bi am na événement yu bëri fi jàll Sissoko sant nañ ci yàlla bu baax baax baax liñ fa doon waxtaanee mooy wàllu coopération bilatérale bi nga xamante ne ni respecté ñett dëkk yi bëgg nañ kaa waxoon euh, sekk ñi nga xamante ne aussi doxal ci question d'intérêt gërëm nañ ci li nga xamante ne bopp def nañ ci ay moyens de disposition ki nga xamante ne ni moom moo yor kàddu pour xeex bi di covid parti bi di Pastef maître Abdoulaye Tall léegi nag nee na moo ngi rëccu seule solution lu mu joué woon mooy am mooy maanaam li nga xamante ne jàngi suba noonu la présenté woon ngeen wax noonu la présenté woon Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne ni bu euh, ñu tijjee li euh, nga xamante ne ni loolu la war a def comme ndaxte nee na moom moo njëkk a jël Ousmane Sonko yóbbu ko ci jàngal xale takk masque daal di leen mil loolu leen dafa force wante nee na bis ni ki daal di na ko rëccu loo seen loxo Ousmane Sonko daal dina weddi li xamante ne nii moom moo di tuuma yu Mansour Faye daal di jël teg ko si ndoddam nee na lenn amu ci bu ñu neexee sax mu daal di génn audio yi parce que ay audio trente minutes trente secondes moom na loolu moom du sénégalais yi kenn waru see sukkandiku ba di la ñaanal jàmm ju sax sutura yooyee jërë ngeen jëf